mës naa taal musóoram ci courant coupé ma indi woon sondeer bi doon ko jéem a niital néeg bi far yàlla may yëkkati sondeer bi pour sama maam bu war a gën a gis lumière bi ci néeg bi nekk da affaire bi jàpp na ci musóor bi defoon naa toj toj boobu beneen bi dafa amoon benn parfum bu neex buñ ma mayoon mu ne ma li ngay xeeñ dafa neex may ma ci may may sama maam parfum mu ne moom mooy pompal boppam ma ne ko maa lay pompal ñuy xëccoo ndekete ci bët yi laa ko pomp sama maam ne ma xamoon naa ni sama bët yaa koy tuur yooyu bëri na nag lu ma marqué ci sama temps booy tamit Fatou Gueye Diouf da doon tëgg boobu maa ngi am 7 ans maximum 10 ans xale laa quoi léegi sama tonton moo ko organisé woon temps booy sama tante yi di waxtaan ci journée bi sama sœur bi di létt nit ñi ñëpp di préparer pour dem ci soirée Fatou Gueye bi. mais comme ambiance la nit ñi journée bi yëpp Fatou Gueye la ñuy waxtaanee guddi jot sama sœur yi di xam nga boo nekkee xale seen waa kër di maquillé wu pour génn guddi da ngay bëgg dem léegi nag ma ne sama sœur nag may dem mu bañ may jooy maa ngi jooy timis ba gee ñu ne ma kenn du yóbbu xale nga foofu xale du fa dem ma bàyyi ba ñuy solu bay dugg ci ba oto yi gaare war leen jël oto bi njëkk a gaare man dugg naa ci mal bi te kenn yëgu ko sama temps booy loolu def naa ko ci. <laughs> ñoom dañ nekk ci biir soire bi jékki-jékki rek gis ma ci pëjamu faatu géwél bi may waxtaan ak moom man daal lii laa def ci sama temps booy xaw ma nag nu ngeen ko gisee. Viviane Chidid nag laa bëgg ngeen woo ko mu wax ni temps booy.